Wow, aan direct uh, waaw ñoo ngi fii ci levée du corps bu Oustaz Ahmed Ba di grand muxaddam Maulana Cheikh Ibrahim fii ci dalal jàmm dafa fees dell ba nga xamante ni tey xamuñu sax ban porte lañ mën a jaar pour génnee ko ci biir hôpital mbokk taal bi yëpp ñëw nañ

levée du corps bu oustaz Ahmed Ba ñu ko hôpital seen seen seen seen seen mbaari alaaji maama des ko man lay jaar rek sama

Nereye? Nereye? taalibe yi ñëw nañ en masse ñoom ñëpp ñu ngi zikar gis ngeen ko taalibe yi ñëw amas, ini masse ñu

yëkkati fii si hôpital Dalal Jàmm levée du corps Ahmed Ba